réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. bu ñu sukkandikoo ci journal bi nga xamante ni moo di Source A moom moomee nag tey mu xëy fësal sa xëtamu njëkk ba ki nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko ak ñi nga xamante ni ñoo di ay avocat journal boobee nag di wax ne ki nga xamante ni moo di Sonko dafa daal di ignorer li nga xamante ni mooy conseil bi ko ay avocat joxoon. nee nañ dañ ko waxoon ne ko na patienté bis bi nga xamante ni fii fukki fan bi nga xamante ni demande nañ fi nga xamante ni moo di tribunal ginnaaw cour suprême bi mu jëleen dogal ne ate bi nga xamante ni si saaba si fay atte woon na ko Ousmane Sonko ne nañ ko delloowaat turam si liste électorale yi cour suprême nag jëloon dogal ne loolee kat dinañ ko yóbbu fi nga xamante ni mooy tribunal bu ndakaaru waat ko foofee ñi nga xamante ni ñoo di avocat Ousmane Sonko yi nag neewoon nañ ñu dañ xaar kat ba jógee foofee nag ndax ñun nag yaakaar nañ ni foofee dinañ fa am ndam boo ko defee nga daal di man di woy samp li nga xamante ni moo di sa candidature waaye nag gis nañ ne Ousmane Sonko nag nee nañ xaarul loolu ndax nag dafa daal di samp ki nga xamante ni moo di Bassirou jamaay fay mu demal ko si li nga xamante nii moo di élection présidentielle 2024 yi ba ni ki tey jii sax la war a commencé li nga xamante nii mooy wutam parrainage